jaay eh, kon euh, léegi mu yegg si mbokk yi ñu ànd ak moom ci li nga xam ni moom mooy euh, waxtaan wi moom mooy directeur de la prévention ci ministère de la santé. na ngeen dégloo RFM matin loolu wóor na wóor ah, soo leen yeewoo su matin déglu leen RFM matin ah soo leen yeewoo su matin waaw na ngeen déglu RFM matin. Sur RFM Matin RFM Matin émission bi yeewaa Sénégal. docteur euh, ñu ngi lay nuyuwaat. Euh, Babacar may lay nuyu. Mhm. di nuyu auditeurs yëpp. ak euh, téléspectateurs su fekkee ne am na. Mhm. di nuyu El Hadj aussi di nuyu waa rajo bi yëpp di nuyu sénégalais yëpp. yow yaay directeur kon de la prévention ci ministère de la santé et de l'action sociale miin nañu la léegi bu baax ndax coronavirus bi nga xam ni. saa yu ñu xëyee ci weer yu nu weesu yëpp yow yaay joxe xayma gi bilan du jour tey nag la euh, ñàkku bi di tàmbalee vaccination euh, euh, lañ moo ci mujj ci ci xibaar xam nañ ni yëf yi yegg si woon na keroog aéroport président tertu ko yaa nga fa woon ak ministre la santé ak yeneen kilifa ñu ne yëf yi ñu ngi koy séddale ci diwaan bu ne ak lu mu war a am séddale gi nu mu demee ak ci lan la tënku. fu ngeen ko teg ci deux cent mille doses yi yi njëkk a ñëw. jërëjëf Babacar di aussi xam ne que bés bi ñu doon séntu la bi ñu yaakaaroon aussi am ko te yàlla def na ñëw nañu ba ci moom mooy maanaam que vaccin am ci àdduna bi am na période bi nga xam ne. Euh, séntuñ ko woon mais yàlla def na ni ko vaccin feeñ na comme yaakaar dikk na euh, suñu plan mu ngi euh, aju ci population Sénégal yépp mais ku nekk xam na ne que population bi yëpp mënu ci jot niñ ko bëggee loolu mooy ci àdduna bi yëpp yàlla def ñu def ko ay pàcc pàcc bu njëkk bii nag mi nga xam ne ñu ngi koy yaakaar ñu ngi koy yaakaar am ko ah mu ngi toll ci ñi nga xam ne ñu ngi tànnagum euh, ñi nga xam ne am nañu juróom fukki at yu jëm kaw ñi nga xam ne am nañu aussi juróom fukki at jëm kaw toujours sooxaale yeneen feebar ak ñi nga xam ne sénégalais bépp bi nga xam ne mu ngi sooxaale beneen feebar ak agent de santé de première ligne agent de santé yi sax dañ ne première ligne du ñëpp donc pàcc bu njëkk bi ci séddale bi ci ñooñu lañ ko jagleel ñu ne nañ ko tàmbale par ñoom ñëpp ñoo ci bokk waaye nag nañu tàmbale par ñooñu suñu paree ñu doog a commencé yeneen yi séddale bi commencé na ci région bi yépp ñu ngi dem léegi ñu ngi ci dernière boucle bi mooy maanaam diggante euh, Sédhiou kéedugu Ziguinchor ak colda ci boobu axe boobu euh, mun nañu wax ne que oto yi dugg nañ foofu pour euh, joxe dernier vaccin donc dernier dose yi mu ngi euh, war a yegg tey incha allah ci réew mi yëpp war na daj. Mhm. te aussi waaw deux cent deux cent mille doses la am. Mhm. pour ñàkk bi alors que ñi nga wax sànq cible yi muy personnel de santé nekk première ligne. Mhm. muy mag ñi ak tamit ñi amee comorbidité yenn feebar ñooñu ëpp neen fuuf deux cent mille léegi mbir yi nu ngeen ko nar a doxalee. déedéet ëppaguñu deux cent mille parce que dañoo def lu ñu woowee recensement dañoo yónni lettre circulaire monsieur le ministre de la santé de l'action sociale ci structure yëpp ku nekk def recensement yow structure bi nga yore nga def agent de première ligne mooy maanaam ñoo féete ñoo sës rëq ci malade yi ku ci nekk def recensement yónni ñu bi ñu yónnee fekk ñu yón euh, ñu xayma ko bi ñu ko xayma ñoom li ñu yónnee yëpp cent quarante et un mille huit cent quarante un cent soixante-dix cent cent quarante 141 870 donc mun nañu wax ne que ñoom premier ak deuxième passage ñoom soo seetee li ñu leen jox dégg nga ci pop ci motuñu loolu mais li ñu leen jot mun na couvrir euh, euh, seen population. loolu la loolu noonu la demee kon ñun. léegi boo ci boolee mag ñi boole ci ñi amee ay comorbidité est que dina mate. Euh, ñooñu mun na am ñu tàmbali leen mais du mot mais que ñu ngi xaar yeneen doos ci début mars bi. mun nañu wax ne que ñoom euh, bu soobee yàlla dina dina mot parce que 200000 rek dose la ñu am la ñu amagu président wax na ci Twitter ne président de la république wax na ko plus de 6 millions. Euh, très bien hmm? euh, son excellence monsieur le président de la république au passage ñu ngi koy nuyu di ko gërëm di ko jaajëfal ci mbir mi dafay dañoo dugal suñu planification ci yu bëre ni mu ko waxee woon sànq ñu ngi ci initiative COVAX. mais ñu ngi wut sur le plan bilatéral ak yeneen moo tax dose yi njëkk a ñëw mais ñu ngi xaar ci Union africaine ñu ngi xaar ci initiative COVAX ñu ngi xaar euh, même sur le plan bilatéral ñu ngi liggéey même ak la Russie actuellement pour mun a am yeneen dose. ministre la santé wax na démb ne euh, fileek euh, at mi di jeex bëgg nañ ñëpp ñàkk loolu mën naa ne ah. mun na nekk mun na nekk incha allah parce que. ci initiative COVAS mooy lan 16 millions de sénégalais yi. déedéet pas 16 millions sénégalais mooy cible bi xam nga nee naa la damay fàttali eh, Babacar. xale yi bokkuñ ci. déedéet xam nga xale yi bokkuñ ñun 18 ans jëm kaw. loolu moom pratiquement loolu moo am soo gisee loolu aussi sur le plan épidémiologique sur le plan épidémiologique soo seetee feebar bi nu mu tëddee nu mu tëddee léegi fi pàcc bu njëkk bi pàcc bu njëkk bi nee naa la. ñu am 60 ans juróom benn fukki at jëm kaw am juróom fukki at jëm kaw fekk dañuy sooxaale yeneen feebar ak képp ki nga xam ne yaa ngi sooxaale yeneen feebar même soo nekkee yaa ngi at am côté dix huit ans dix neuf ans su dee da ngay sooxaale beneen feebar rek ak agent de santé de première ligne loolu mooy vingt pour cent yi njëkk yi te loolu. xalaat nañu agent de santé de première ligne mooy ñan. ñan fajkat yan fajkat. agent de santé première ligne Babacar mooy képp ki nga xam ne yaa ngi ci hôpital wala dispensaire wala poste de santé fekk yow yaa ngi sës euh, sës rëkk ci maladie parce que ma joxe exemple. soo ñëwee ci malade corona yi. non pas malade corona ah. malade bu nekk xam nga ku ñëw rek ne ma demaa sibiru nga wax ak moom mun na am nga nga nekk euh, agent de première ligne brancardier kii ñi nga xam ne malade su ñëwee dafa feebar dafa tëdd kenn munu ñi koy yëkkati ñiy dawal ambulance. di wàccee malade wala ñooñu agent de santé de première ligne agent de santé de première ligne du catégorie socio-professionnelle bi nga xam ne médecin la sage-femme médecin sage-femme pharmacien biologiste brancardier même gardien peut-être ah loolu yëpp médecin bi mooy xayma borom ki jiitu structure bi mooy seet supposons nga xool nga am gestionnaire wala nga nekk directeur directeur hôpital xam nga yow sa sa rëkk ci malade mun na mun mun nga bañ a bokk ci agent de première ligne parce que yow du yow mais ki nga xam ne mu ngi réanimation kii mu ngi ci biir CTE centre de traitement des épidémies kii mu nga xam ne moom mooy jël une euh, constante maladie mooy maanaam température tension ñooñu ñooy agent de santé de première ligne dégg dañu ne sax bokk na nee nañ sax képp ki nga xam ne rek ci li ngay liggéeyee yàlla dafa def yow yaa ngi wax ak maladie wala di jokko ak ñoom rek maanaam di di janoo ak ñoom ci agent de santé première public ak privé yëpp wala public ak privé dañoo recensé fu nekk Dakar ku nekk amul kenn ku ñu bàyyi képp agent de santé publique privé parapublic confession confessionnel maanaam nga xam ne ci sœurs yi wala ci ci dispensaire Ibadu tout le monde militaire hein amul kenn ku ñu bàyyi ci Sénégal yépp ku ci nekk yónnee na démb seen kii yépp am nañ ko xam nañ ko ñooñu dinañu daj ba mu des ay doos dose yooyu ñu tàmbali yeneen parce que plan la encore une fois. donc nit ki ku nekk ñaari yoon lay ñàkk ku nekk yoon day ñëw benn yoon ci vaccin bi ñu tollante ko ci su ma tee ñetti semaine mun na am mu am wute tuuti ci yeneen vaccin yi di ñëw parce que Sénégal xam na ne munu lu gënoon ci àdduna lu gënoon moo ñu am benn vaccin ci Sénégal yépp mais kenn mënu ko am yeneen réew yi sax yi réew yi koy produit sax. am na bu nekk Amérique bu ñu naan Johnson and Johnson boobu benn yoon rek ngay piqûre. boobu Johnson and Johnson Sénégal dina ci am déposé na ci te dig nañ ko ci confirmé nañ ko ci Union africaine dinañ am ci Johnson and Johnson bi dinañ ko ci am dinañ am ci AstraZeneca bi dinañ ci amaat dégg nga dina am. Euh, euh, euh, Sinopharm bi ñu ngi ko Sputnik 5 bi sax mun na am. ñu am ci parce que dinañ ci am sax incha allah. parce que président wax na ko tey wax na ko incha allah te ministre confirmé na ko te demande bi dem na déjà demande bi dem na déjà expression de besoin bi dem na déjà ci ci Sputnik 5 bi. mais ñàkk yooyu wute. ñàkk bi euh, Sinopharm beneen nga ñàkk AstraZeneca wala Sputnik est-ce que euh, du am njeexital euh, ci ni mu waroon aare nit dëgg-dëgg parce que ñàkk yi bokkul bii fii bii fële est-ce que du indi jaxasoo. tey ci Sénégal yëpp démb lañ ko tàmbali ñu ngi former agent yëpp xam nañu vaccin bu nekk. dañu leen a wax ku nekk formation bi ku nekk ñu dolli la xel parce que agent de santé mun nañu piqûre mun nañu lu nekk ku nekk ñu xam na exactement agent bu nekk maanaam per bu nekk ku ñëw war a ñàkku sénégalais bu nekk waxuma ku ba sénégalais bu nekk ku war a ñàkku su ñëwee vaccin bi nga jël ci bii yoon moom ngay tollanti su motee ñetti semaine même su amoon quatre vaccins en même temps man mii docteur Ndiaye su ma ñëwee jël bii munuma ñëwaat. ma amaat beneen. déedéet fi may waxee mooy wàllu degré d' efficacité degré d' yi bokkul. est que loolu laay waxee est ce que dina mën a aaru dëgg ci degré yu wuute. waaw amul problème loolu amul problème degré yu wuute yi loolu génewul dara degré yu wuute yi loolu euh, wuutewul euh, kiiwul dara soo seetee degré yi sax sorantewul dégg nga Sputnik 5 bi au de 92 pour cent bii euh, Sinopharm bi 79 virgule 2 80 donc 80 pour cent yële 70 à 90 pour cent bu AstraZeneca bi boobu sax léegi lii li mujjee génn mooy que mun na passé sax 90 pour cent su fekkee ne intervalle bi mooy. maanaam OMS nee na 50 pour cent jëm kaw baax na. waaw ci loolu laay jëm incha allah donc quatre-vingt-dix boobu dina ëpp sax quatre-vingt-dix pour cent dina teg tuuti su fekkee ne intervalle bi dañ doon waxoon nekk su motee trois semaines rek wala quatre quatre semaines rek la ñu waxoon di AstraZeneca soo jëlee bii xaar quatre semaines mooy maanaam weer tollantiku mais weer bi su paasee soo defee deux mois sax jëm kaw soo ko jëlaatee day ëpp loolu te OMS li Babacar wax léegi vaccin su motee su munee am cinquante pour cent rek d'efficacité OMS nee na ko boobu déjà mun nañu wax ne baax na boobu donc war na mun a bokk ci nga xam ne war nañ leen a homologué donc nangu sa dossier moom baax na ku indi dossier vaccin bi nga xam ne motul cinquante pour cent duñ ko xool mais su de fekkee ne mot na 50 pour cent rek OMS nee na ko yow sa dossier baax na kat mun nañ ko mun nañ ci xuus. Mhm. léegi euh, ministre de la santé moom tey lay ñakku dañoo gis ci yeneen réew balaa kenn ñakku président bay ñakku xanaa Macky Sall bëggul bu chinois bi. <laughs> non xam naa ne du loolu wallaay du loolu xam naa ni du loolu président vaccin yi ñëw pare gu ñu ñëw donc. soo seetee sax xam nga euh, mënuma euh, tontu ci mbirum président mais soo seetee nit ñi aussi parfois même am na ñi nga xam ne dañu wax ne képp ki nga xam ne war nga mën a ñàkku sax na nekk rek aspect communication nga xam ne mais sinon dafa mel ni dañu ne pàcc bu njëkk bi ñii lañ ko jagleel parce que loolu aussi il faut ñu expliquer Sénégalais ba mu leer waxuñu aussi que Sénégalais yi agent de santé yi première ligne rek ñoo ci wala nangam wala ñoom ñoom moom vaccin ñeneen ñi bokk déedéet dañu ne ñun ñëpp a ko bokk waaye nag nañu muñal ñii ñu jàll ba pare puisque ñoom ñooy faj maladie ñoo nekk ak maladie te ñooñ suñu feebaree sax kenn dootul dem hôpital te ñoom tamit bés bu ñu amee feebar bi dañ koy wasaare ci askan wi maanaam maa ngi liggéeyee ci benn hôpital nekk ci ay malade su ma wàccee ñibbi sama waa kër wala leen wala ma jël oto wala kaar wala taxi ma ki yàlla donc loolu la ñu wax dañu ne nañu leen bàyyi ñoom ñu ñàkku ba pare ñeneen ñi ñëw normalement fii ak du mot du mot dix jours maanaam fukki fan normalement yële yu AstraZeneca yi wala sax bu vaccin russe yeneen mun a ñëw donc ñun ci planification dañ ne nag xam nga mënoon nañu xaar rek ba mu daj te dañ ne noonu président de la république son excellence def ne bu ñu xaar dara lu ñëw rek nañ ko commencé parce que jéego yi yaa ngi xeex ak benn feebar jéego boo teg rek mun na am am bénéfice boo am parce que ñaari weer wala weer bëri na ci feebar bi nga xam ne delluwul ginnaaw nañ ci continuer rek di ci di ci xuus di continuer donc dafa mel ni rek élection su amee élection su amee dañuy may militaire yi nga xam ne ñoo ñuy aar ñu voté une semaine après avant donc dafa mel ni loolu ñu bàyyi leen ñii lu mot semaine ñoom ñu commencé di ñàkku ba pare suñu paree rek ñeneen ñi tàmbali loolu la mais du nga xam ne nañ ko comprendre noonu nga xam ne ñun ñëpp a ci bokk ñun ñëpp a bugg a jot et cetera ku ci nekk da cee bugg a jot mais nañ def ndànk ñoom ñëpp incha allah dinañ ci jot loolu moom nañu dalal seen xel dañu mhm. dalal seen xel ci mbir moomu. léegi euh, est-ce que euh, affaire yi dina jaar yoon est-ce que kilifa yi yi yor réew mi duñu rocc ci vaccin yi jëm yóbbu seen kër ñàkk seen njaboot ak ñoom seen lan mooy garantir Sénégal ni affaire yi dina am ci dina jaar ci yoon. waaw euh, d'abord ñun dañ koo teg monsieur le ministre de la santé de l'action sociale def koo teg def def ci ñaaxaat def ñu ñaaxaat ci transparence ni ko président de la république waxee bépp dose buy dugg quelque part war nañ ko mun a prouver ñu ngi d'abord euh, sooy ñàkk dafa am registre d'abord ña xam ne dañu ci bind képp kuy ñàkku dañ ci bind ñu xam ne ban vaccin nga jël kañ nga ko jël ak fan nga ko jëlee ak numéro loo bi et cetera ku ñëw ci registre yi sax journaliste yi sax mun nañu enquête te aussi ñu ngi liggéey aussi di def ay jéego di ko digitaliser mooy maanaam li ñu bëgg xëy na nag loolu xëy na du gaawee noonu mais dañoo bëgg mu nekk même pratiquement en ligne en ligne mooy que Babacar mii mun na inscrire léegi. inscrire naa biig inscrire nga biig yaa ngi mail yaa ngi médina yaa envoyé nañ la mail. yaa ngi mm. ci médina donc yow district normalement euh, fii defe naa district sud moo wala district sant district ma gars yi gaaw a woo nag sud ah sud moo nga bokk. donc ñooñu déjà war nañ jot sa sa sa numéro soo ñëwee foofu rek suñu cliquer dinañ gis inscrire nga. noonu lañ ko buggee ba Sénégal yëpp daj mais nag xam ngeen ne jumtukaay yooyu lu mel ni internet wala digitalisation xëy daju réew mi yëpp. dégg nga et cetera xam nga sama mbokk séeréer yi xam naa ni mbo <laughs> mbokk mbokk George yi nga xam ne am na fi nga xam ne xëy na loolu du yombee noonu mais ñoom suñ jëlee rendez-vous wala ñëw rek mun na am ñu yombal leen aussi parce que lépp luñ ci def aussi dañ ci sooraale yërmande ak aussi yombalal nit ñi ñu mun ci egg l'essentiel li ci am mooy que nit ki su ñëwee nañ ko. jël nañ ko te bés bu ñu buggee vérifier loolu yëpp dinañ ko si euh, vérifier xam exactement sa cible est-ce que ñëpp jot nañ ci et cetera. léegi ñi nekk population ñi nekk cible maanaam ñi bokk ci ñi ñu war a ñàkk. Euh, en priorité mag ñeek yooyu. ba pare bañ ne mbir yi doyul seen xel ak yooyu duñu ñàkku. boobu léegi yéen a ngi wax mais ñu boobaa nangeen def da ngeen leen di bàyyi ku bëggul daal ñàkku ñu bàyyi la nga dem. waaw volontaire d'abord dañ ko teg ci ya mooy maanaam vaccination mosul nekk obligation mooy maanaam forcer nit. loolu mosul nekk mosul am dañu wax nit ñi ci bëri man ci li ma jot a xam sénégalais yi ciy wax lu ci bëri ku ci nekk dafa xëy na dafa am information bu ko manqué information bu ko manqué loolu information yi nag bu ñu demee ba ñëpp ba lépp daj rek defe naa nit ñi dinañ ko nangu ñëpp dinañ ko nangu te loola vaccin moo moo ànd pratiquement toujours nit ki day am ku ci am xel ñaar wala nangam loolu même vaccin bu mujj bi mooy vaccin contre cancer du col yu ñu jagleel xale yu jigéen yi noonu la meloon mais léegi coow amatul polio gis ngeen li mu indi woon ak leneen ak leneen mais lépp bu si àlla àndee dina paas te aussi nit ñi aussi euh, dañoo dëkk fu nekk ci Séné Sénégalais yi ñu nga fu nekk ñu ngi Amérique feneen et cetera gis nañ nit ñaa ngi ñàkku te soo seetee tey tey tey ci fu ñu toll ni ëpp na 200 millions pers nit ñu ñàkku ci àdduna bi dégg nga am na ay réew yi nga xam ne tey coronavirus bi nekkatu fa problème lu mel ni Israël mi nga xam ne boobu moom réew bu yem la te ñoom dañoo am rigueur ci ñi ñu ñàkk ñooñu am am nañu avancement avancement de près de 60 pour cent kii bi wàññeeku na wàññeeku na foofu nde te vaccin moo ko indi. léegi kon nag léegi euh, euh, docteur. oui dañoo euh, bëggoon xam tam. Mhm. ñan ñoo war a ñàkku est-ce que ku tëdd fi mu ne nii ci lalu hôpital am coronavirus dinañ ko ñàkk wala wala déet. déedéet El loolu ci formation agent yi sax la bokk. vaccination képp ku yore maladie infectieuse à la phase aiguë mooy maladie bi nga xam ne dafa ànd ak doomu jàngoor mu nekk ci aiguë maanaam tëdd ci lal wala nangam déedéet dañ koy. may muy corona di leneen. ku feebar beneen feebar doo doo muy corona di leneen. muy corona di leneen da ngay bàyyi ba loolu jàll. même su dee da nga sibiru sax yaram bi tàng lool lool lool dañ lay wax xaaral fii ak ñaar wala ñetti fan ba mu wàcc nga nga doog a nga doog nga doog a ñàkk loolu moom principe de la vaccination la am. loolu la principe de la vaccination mooy loolu toute maladie infectieuse aiguë mais nag ma xamal leen lenn aussi ñun Sénégal dañ ne même ku amoon coronavirus wér da ngay ñàkkuwaat dangay ngay ñàkku loolu aussi OMS sax joxe na ci ay recommandations mun nga xaar peut-être ay quelques weer wala nangam mais ñun dañu parce que amul contre-indication amul contre-indication ñëpp lañ ci ciblé képp ki nga xam ne yaa ngi wér wala yaa ngi sooxaale beneen feebar bi nga xam ne yow docteur bi xool na ne ko xam nga xam na ne ko mun nga ko jël da koy jël dégg nga parce que bokkut ak sa feebar boobu. Mhm. lu dul maladie infectieuse bi nga xam ne doomu jàngoro moo ko joxe te doomu jàngoro yi mu ngi ci phase ni ñu tuddee en médecine phase aiguë maanaam mu ngi gën a tar tëdd tar. ànd ak fièvre bu bëree muy wàccu biir di daw wala ak et cetera. ñi am ay hépatite B ak ñoom seen war nañoo ñàkk ko. pratiquement pratiquement bépp maladie hépatite parce que hépatite chronique bi nga xam ne loolu amul amul ci problème amul ci problème donc loolu amul amul benn contrainte phase aiguë rek la ñu wax. Mhm. phase aiguë rek ñu wax li ñu daanalee docteur. parce que euh, euh, ma ma euh, Babacar may ma waxtu bi nañu mais. soo amee beneen feebar dangay am comorbidité comorbidité la ñu bañ. Mm. lu mu fekk si beneen feebar oui euh, euh, Babacar Alési. Ah, ah ayca léegi euh, ginnaaw waxtu wi dab nañu coowal njëndum vaccin wala dañ ñu koo may ndax bu siin bii dañoo njëkkoon wax ni yéen a waxoon dañu dañ koo may ñu jékki-jékki noonu génne nañ un milliard ak genn wàll ngir jënd loolu nu mu demee noonu coppite googoog taxawaay yu wuute yooyu ci diir bu gàtt lu ko waral. en xëy na peut-être ci information ni ngeen ko jotee wala nangam mais li ci am li ci wóor te am. mooy que vaccin bi dañ ko Sénégal moo ko jënd Sénégal da koo jind Sénégal amul benn vaccin pour l'instant buñ ko mayugum lépp da koy jënd pratiquement lu dul li jóge ci AstraZeneca loolu tamit kuréel bi nga xam ne réew yëpp a lëkkaloo indi seen i moyens bokk ko noonu noonu lañ ko ay ab pàcc. mais sinon Sénégal moo ko jënd. am na solo docteur Mamadou Ndiaye yaa ngi doon séeréer si waaye waaye yëmbal kontaan nañ ci yow <laughs> ndax booy joxe bilan yombol ngay wax. waaw yombol waaw <laughs> xam nga alpulaar moom il faut que mu bàyyi ci dara ñoom ñoom George am lu ñu wax quoi. <laughs> jërëjëf ñu yendoog jàmm. merci Fatou Dieng. képp kuy safoo groupe Futur Média dal leen jàmm ci ñaareelu pàcc info du matin dañu koy dooree ak xibaar yi ànd ci ak Chérif Dia ak Mamadou fal